wa rabbuka sa borom yàlla dafa ndénkaane ndénkaanel farata ni rabbuka sa borom yàlla allah taabudu bu ñu jaamu illa iyaahu kudul sun wa bil walidayni sa ñaari wayjur nag ihsaanan loo man ci rafetal rek xeeb nan loola mbokki jullit yi bu ngeen seetloo rafetal jëme ci say wayjur sunu borom toujours da koy lënkale ak boppam gis ngeen ko nii ci suratul isra gisoon ngeen ko ci suratul luqman gisoon ngeen ko ci yeneeni saar yu bari ca suratul fusilat saar yi ngeen gis ñu tafsir ko romb ko yépp te borom bi di ca dénkaane ñu rafetal jëme ci suñuy wayjur boo ko seetloo ba ca biir yàlla lay jiital ak cër ba mu am ci ñun mu teg ci wayjur loolu lim lay won mooy wayjur ku foor la ndax làng ku foor lan ko teg yàlla farataal na ni dafa dogal ni dénkaane ni warlul ci ñun ni allah taabudu bu ñu jaamu illa iyaahu kudul moom kudul yàlla bul ko jaam ndax kooka jaam la comme yow jaamoo ko war wa bil walidayni sa ñaari wayjur muy baay yaay ihsaanan nga rafetal jëme ci ñoom ihsaan ihsaanan mooy mboolem luy xeetu rafetal rek xeeb nan loola imma yablughanna saa su yeggee indaka fa ñoom ah fa yow alkibara magal ga ahaduhuma kenn ca ñoom aw kilaahuma wala ñoom ñaari ñëpp sunu borom mu ni saa bu yeggee ci magal moom baay saa bu yeggee ci magal moom yaay saa bu ñu yeggee ci magal ñoom ñaar sunu borom mu ni léegi nag waxuma la defal njekk jëme ci ñoom waaye yokkal njekk gi nga doon def waaye yii de mbokk jurit yi ah war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax rawatina ñi seeni way jur di dund yàlla nee na dama dénkaane woon faratal àllub neen ñuy rafetal jëme ci sunuy wayjur loo def ci ay xeeti njekk rekk xeeb na loola loo leen jëndal loo leen defal foo leen dëkkal yóbbu leen mag yóbbu leen ñu faju ji faj leen buñ feebaree fajal leen seeni aajo jënd leen lu ñuy sol joxal leen seen i bëgg-bëgg yooyu yëpp sunu borom mu ni loo ci def rek na ndax ihsaan moom ëmb na loolu lépp waaye imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma bu la fi seen magal fekkee nag kenn ca ñoom aw kilaahuma wala ñaar ca ñoom ñaar sunu borom mu ni laxasaayu waatal nag wagasul waat wagasul waat akbar mbokk julit yi kuy liggéey ci àdduna boo demee bañ ñu la soixante cinq ans nga retraité soo demee ba sa soixante ans mat sa programme yëpp mooy nooy gaaw profité balaa ngay retraité ndax boo xasee retraité rek la nga mënoon dootoo ko mënati mbokk jullit yi képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal ab nit mu wóor la ni kii liggéey bi lee mu jeex kat te su jeexee kat amana mën na la caa faylu duuna duun mu jëntal nga da nga cay góorgóorlu loo man way jur yi bu ñu màggatee ku dem àllaaxira ñu dem ku demul àllaaxira ñu dem kon ñoom ña nga buntu àllaaxira toog di xaar donte yow it yaa nga fa waaye ñoom dañ laa gën a jege sunu borom ni su loola amee yokkaatal saw xel rafetalaatal say kàddu yokkal say njëkk ak di leen nemmeeku ak di sonn ci ñoom ak di leen bàyyi xel ak di faj seen aajo ak di leen wuy ji ak di toppatoo seeni bëgg-bëgg ak di wattu seeni bañ-bañ luñ sàkku ci yow bu dee loo man la nga def ko boo ko mënul demal nga jéem ko luñ la tere bàyyi ko tey jéem di leen defal ay teraanga ci feeñ ak ci lu nëbb sunu borom mu ni bu nu màggatee nag fala taqul lahuma uffin bu leen waxat lu mel ni uff ëf moo kàddu yu gàtt yi ngeen xam yépp ñoo bokk yam ci patu ëf merde xoowaay wala wiccax loxo wala ci patu xeet yooyu yëpp ndeysaan day dugg ci uf bépp baat bu gàtt bu salte rekk day dugg ci uffin mooy nga wax say wayjur kàddu goo xamante ni kàddu gu gàtt la te mbokk yi xam ngeen ni waxuma sax way jur waaye kàddu gu gàtt ci boppam dafa mën a blessé xol yow mii rek ki nga yilif bu la waxee benn kàddu gu gàtt rek sa xol bi di waa ji sa way jur wi nga xamante ni tolloon ngay jamono bu la sàngul woon sàng bu baax sax ngelaw wala àddina lii rey la yàlla mu ne kooku falaa taqul lahuma uffin kooku mérité wut kàddu googu kooku xam ne yàgg ngaa gàll ci kawam yàgg ngaa tuur ndox ci kawam yàgg ngaa yàq sa yére ci kawam yàgg ngay bitar ñi koy jooy kenn xamut looy jooy mu jël sa yitte yàgg ngaa sonn yàgg naa sonn ngir yow yàgg naa feebar waaye fekk feebarut yow yaa feebar mu feebar feebarlu sunu boromu ni kii kii fayoo ko ak de fayoo naar bi xoromam de xoolal sa baay di dang-dangi suba ngoon ngir yow bu événement jub see du am jàmm ndax da la bëgg a bégal sa dàll bu daggee mu jënd sa yére bu yàqoo mu jënd sam njàng moo ko fay sa liggéey moo la ko lijjantil ah yàlla mu ni kii mérité wut kàddu gi koy jox de fala taqul lahuma uffin bu leen wax uff de wala tanharhuma bu leen gëdd di wax ak say wayjur mel ni koy wax ak say morom la ilaha illa allah mbokk yi mbaa xam ngeen ni salafu ku ci masaana wax ak sa yaay mbaa sa baay sa kàddu gën a foor sa kàddu yaay mbaa sa baay te fekk tayoo ko sax laa wax day dem ca marché ba jënd ñaari jaam goreel ko jéggaloo ko yàlla ku ci masa wax ak say waxuma gëdd de waxuma arsala de déedéet sa baay di wax ca kaw loolu ko ci masa def te fekk da juum da ngay dem ca marché ba jënd ñaari jaam goreel ko ngir jéggaloo ko yàlla parce que da ngaa jàpp ne li nga def ëpp na waa kon ñi koy def te tayuñ ko te duñ def loolu ak ñi koy def te tay ko ñoom moom luy seen àtte wala tanharhuma bu leen gëdd wa qul lahuma wa dee leen wax xawlan kariman wax ju tedd ju neex kaddu yi sa yaay gën a bëgg na koy dégg ci yow kaddu yi sa yaay bàyyi gën a bëgg na koy dégg ci yow laaye ji mbokk julli di jàpp naa ni mën nañ cee bañ a guddal lool ndax romb na ay yoon yoon yoon ñu di ko tafsir ca suratu luqman ci suratu fusilat ci suratu saar yi jàll gis ngeen ko def nañ ci ay waxtaan ba tàyyi leeral nañ ci ay misaal ba tàyyi mu des nag kenn ku ci nekk xool yow li nga jot a dégg loo ci jëfe sunu borom mu ne waqul lahuma dee leen wax xawlan kariman wax ju tedd wax ju nooy waxi waxi ku yambare waxi ku yambare koo xam ne daanaka day mel ni rek ci ngay waxal da koo ragal suñu borom ni waxfid lahuma rësalal janaaxa zulli laafab toroxal sa bopp a min arrahmate ma yërmandee ko waral aaye jii day sànq ci ngoon bi may xool tafsir bi li lay wan ni alquran alquran du yëfi nit yëfi yàlla saa boo koy gën a xool rek di gën a gis ay yëf yu bees aaya ji bañ ko dalee jàng ba tey ni mu yàggee waaye sànq day seetlu naa ci benn sew sew bu ma yéem boo xam ne yàgg naa koo romb te mësuma koo seetlu waxfid lakuma janaaha dulli min arrahma wàcceel sa bopp sa garat wàcce ko toroxalal sa bopp waaye min arrahma na ko yërmande waral nag mooy wane ne nit dana toroxal boppam ci kanamu way juram te fekk yërmande waralu ko su boba doom tiyaaba ci misal bu góor gi nekkoon ab allemand boo xam ñëpp ko ragal nga toroxal sa bopp ci kanamam ngir ragal ko comme ñëpp doo am tiyaaba yi ko way juram déedéet ndax minal rahma mooy tax nga am tiyaaba su fekkonté dafa am ndombay tànk yoo xamante ni boy déconné rek man la tejj bu ndax commissaire police lam amna nangam nangam nga ragal ko ba diko top ngir lola do am ndax minar rahma waralu su fekkenti da nga yegni ni defut nit ñi ni ki mo bon ci bayam doo am tiyaaba ndax minar rahma waralu ko waaye da koy def avec plaisir parce que minar rahma damaa am yërmande ci moom ak gëm ni yàllaa ma ko digal sew sew boobu mbokk jullit ñu bari ci ñun duñ ci bàyyi xel waxfid lahuma wàcceel janaaxa zulli laa fag toroxal sa bopp wàcc sa bopp minar rahma te yërmande na ko waral wa qul rabbi na ngay wax yow sunu borom irhamhuma yàlla na nga leen yërëm kama rabbayaani comme niñ ma yëree woon yar ma saa yërëm ma nekk ndaw defe naa aay ji tafsir nañ ko ay yoon def nañ ci ay xutba def nañ ci ay waxtaan ala kulli xaal leeral nañ ci mbir yu baree baree bari su ma ci doon tudd juróomi yëpp rek mu nekk ngir fàttaliku damay wax ni bi ci njëkk mooy mbokk jullit yi salafu saalih de boo jàngee seen dund nan doon déggalee seeni way wayjur ak nun day sorente nañ lool fu tolloog fukki mbubb ak yaramu neen kenn ngi koo xam ni boo ko masaana fekk ci yaayam dañ naan da ngay yaakaar ni daa siburu suñ ne lu ko dal ñu ne dara dalul ko moom kat bu xasee ñëw ci yaayam nii lay mel kenn ngi koo xam ni dañ koo dugal kaso mook baayam ci jamonoy sedd baay ji mënta jàppee ci ndox mu sedd mi muy dugal matt di ko taalal gardien bi di ko matt dootul dugati ci kaso bi mu bàyyi bañ julli gee ba nag mu jël ab pot dem ba ci pegg lampe bi xam ngeen làmp bi day am chaleur mu jël pot bi téye ko nii ci pegg làmp bi pour saleur bi nukkal ndox mi noonu la ko téye bu loxo bi toqee mu téye bu loxo bi toqewaatee mu téye ba fajar jot ngir baayam na am ndox mu tàng mu mën a jàppee kenn ngi ca ñoom koo xam ni nee na xalaatuma yéeg ci kaw terrasse boo xam ni baaye ngi tëdd ci suuf loolu mu xalaatuma ko moom kenn ngi koo xam ne daan rast am meew yëtt ko yaayam yaay ji ni ko lii ngay def yàq la ndax wax naa la su ma xëyee damay woor bul fi indeeti meew mi mu ni ko bu la neexee nga naan ko bu la neexee nga tuur ko waaye dinaa ko indi ndax ñun rastkat yi xam nañ ni meew mi gën a baax ci meew yi mooy mi fanaan ci battab nag wi mbaa battab weenu gëléem gi la gën a baax nag su ma ko rattee moom sama yaay laa koy jox bu ko tuuree sama jaan wàcc na su ko mayee sama jaan wàcc na waaye yow laa koy indil moom xadisab ñett ña duggoon ca xuntuma gis ngeen ka tiimoon way juram di xaar mu yeewu ngir mu njëkk a lekk ay bokkam lekk ak ak ak ak ay misaal yu bari yooyu yëpp mbokk jullit te tuddoon naa ko fi kenn ku nekk ci ñun na ci natt boppam fan la toll ak yaayam fan la toll ak baayam borom bi tabaraka dee leen ñaanal tamit teg ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla yàlla na nga ma yi leen yërëm comme ni nga ma yërëmee woon nekkee gone sunu borom ne rabbukum seen borom yàlla nag aalamu bi ma fi nufusikum moo gën a xam ni ne fi yéen booy yaru yaru lu moo ko xam boo yaroo moo ko xam booy baax baax lu moo ko xam boo baaxe moo ko xam booy ngistal moo ko xam booy ndékkital moo ko xam booy sérieux sérieux lu moo ko xam boo sérieux dee moo ko xam rabbukum alam bi maa fi nufusikum ay ji mbokk na de huwa aalamu bi ma fi suduril alamin ah huwa aalamu bikum wallahu aalam bi shaakir gis nga aalamu aalamu yooyu gis ci alquran boo ko booleeg rabbukum aalamu bi ma gis nga léeg-léeg da ngay toogam yàgg da ngay xalaataat ci aay daal dëgg dëgg affaire bi dootoo mën a dem de rabbukum seen borom yàlla aalamu moo gën a xam waxul de xam na moo gën a xam sax nag bi maa fi nufusikum même yow sax li ne ci yow yàlla la ko gën a xam moo ne mën ngaa foog ni yaa ngi sellal fekk sellaloo mën ngaa foog da ngaa sérieux fekk sérieux woo te fekk yow boo xamoon ni sérieux woo ba léegi soppi nga waaye xamoo ko sax yow waaye yàlla moom moo gën a xam moom in takunu salihina bu dee da ngeen a baax yàlla xam na bu dee baaxu yàlla xam na bu dee da ngaa yàlla xam na boo sérieux wut yàlla xam na boo déggalee say wayjur yàlla xam na boo leen déggalul yàlla xam na boo leen déggalee mina rahma yàlla xam na boo leen déggalee mina la ca des yàlla xam na sunu borom mu ni in takunu salihina bu dee da a baax fa innahu moom suñu borom kaana dafa nekk lil awaabiina ñi nga xam ne ñuy dellu ci suñu borom gafuuran di ku bari njéggal gafuuran di ku bari njéggal lil awaabiin ñi nga xam ni bu déggee leen di jariñ rek gaaw dellu ci suñu borom ca loola mooy lan góorgóorlu nga sa digganteeg sa borom ba pas-pas ba dëgër góor sa digganteeg sa borom ba doo ko bokkaaleeg yàlla góorgóorlu sa digganteeg say wayjur ba daanaka la la ca war def nga ko daanaka yow mën naa ni fi mu nekk nii sa caabi àjjana yaa ngi ko yore di lux-luxi xam nga caabi sax di nga ko nga bës mu dëgër ngay bësaat di xaar mu tijjeeku yëgal ni yow fi mu nekk nii yaa ngi yor sa caabi àjjana di lux-luxi sunu borom ni soo ca paree nag waa aati na nga jox zal qurba jege ñaale yi xaqahu àqam sa doomi bàjjen sa doomi ndijaay ñu ngi def sa cousin sa doomu baay ki nga bokkal genn geño ki nga bokkal genn kër ki ngeen bokk képp ku la gën a jege ci wàllu mbokk rek yàlla mu ne jox ko àqam ba mat mbokk yi ñun fii liñ ciy daanu bari nañ de sa mbokk loolu sunna la da gis koo xam ne jàmbaar la ndeysaan di sunna lay dund def nangam nangam yow sunna si ngay dund lii ci la di sa bàjjen sa baay bu ndaw sa ndijaay ak képp ku la jege ci wàllu géño ci deret est-ce que yaa ngi leen di jokk am na ci ñoo xamante ni ay téeméeri téeméer lañ te ñi ngi bokk ak yow deret te mosuñoo lekk sa téeméer ba nga juddoo ba tey loolu xoolaat ko loolu jaaduwut munoo jox ñëpp waaye am na ñoo mën a jox te joxoo leen am na ñoo xam ne ñu ngi bokk ak yow jege lool te mosoo leen a nemmeeku ci dara ci dara ci dara nag amut loo mënatul mosoo leen cee nemmeeku yow loolu sunna la di am na ñoo xam ne ñu ngi am aajo ci yow nga fajal leen ko a même aajo ji ku la gën a jege ci wàllu deret fuuf mi ngi ko am nga yëg ko ba noppi te jéemoo ca dara moo yow loolu ci sunna la bokk di wa aati dal qurba xaqahu aq bi mu am ci yow jox ko ñu bari ci ñu ñun ndeysaan mën nañoo jàmbaare ba defee ne ay jàmbaar lañ waaye yu sew sewaan yi daal buñ ci yegsee dañ na ngam ngamaral mel ni ku yëgut woon ni lii ci yëf yi la bokk wal miskina ku ñàkk gi jox ko àqam añaanante gi lu waral mu bari parce que dafa am ñu bari ñu am àq ci yow boo ko yëgee def ko soo ko yëgul ñu yëgal la ko def ko te nga jéem ca la nga ca man soxlay jaam yépp moom mënoo koo faj ndax yàlla mi ko mën a faj sax defu ko loolu jaam yi seen i soxla yëpp mu mënoo koo faj ndax yàlla mooy ki ko mën a faj ba pare te defu ko la tax mu dee mu def ko moo lay wan ni kon mënoo faj ñi aju yëpp yow na sabil ak doomi yoon mooy tumuraan tumuranke nekk ci tukki sunu borom ni wala tubadir tabdira nee na bul nekk ab kat koo xam ni foo ko fekk rek pasar pasar wasar wasar yàlla mu ni déedéet bul def loolu innal mubadirina yàqkat yi day kaanu dañoo nekk ixwaana shayatin mbokki seytaane